njàmbaas Babacar du mën a ñàkk waykat ba noonu na daqaar sa boo koy jaay amul ful la xam naa moo tax fàllu def lii mu def kon wala balaa ñu dugal mbëri sax nañu bàyyi rek waa kër Pape Seck ñu ñamoon ñu tuuti sabar yi après ak way tuuti rek ñu doog a dugal mbëri yi ana euh, borom sabar yi ay mbaru doole mbaru mi yaa bari doole mbaru doole mbaru mi yaa bari doole njaay jigi joor na ana Franc lay ba tey bëre leen ngel bu zab lay woo man makk yaayu doomu dango nge garmi yaa ngi ne ana forus lay bigi samba yaa ndengan njaay mbër yëpp a ngi fi gis nañ xale yëngal nañu ñoom Aliou Fat Fat ak waa gaay ak déglu waay s'il vous plaît gaay waaw loolu ci am bismillah ina waa nii xoolal fële yàlla amaan seera fa man sa doon a jokkul jóg man nga waa Alioune Mar Zil Ndoye laamin nga téye nii di wax rek mais man xooluma la sax si bëre parce que Serigne Bamba xooluma la sax si bëre lu yow rek de yow ak keneen ak keneen xooluma la sax si bëre boo xeexee dina métti si yow trop yow boo xeexee dina métti si yow trop nga téye sa musique angale gii di wax sëñ bi bi ma vigilant woo bët xool fu sori man xooluma la sax parce que Serigne Bamba xooluma la sax vigilant woo bët laa wax ni xool fu sori jël sa bët xët xool eh, eh, jël sa bët teg ko pale wax da nga doon déglu déglu moo jël sa eh, jël sa bët teg ko dañu sa sunne bàyyi waaw kon dem leen sant waaw bu ñëw nag bu ñu jógee ñu leen di leen gërëm di waajal suñu combat bu wér-wér di sant waa Jokkul Njaani ga waa Touba sama ñoom nijaay Moustapha Ndiaye Gane waa Jagaba. mii taxumaa jóg man fi may xool du moom moo ko jàppee combat bi da am une minute. taxaw dëggal boppam rek moom bu taxawee combat bi du yàgg sax. su taxaw su taxaw su def. su taxawul loolu leer Mbaye Tafa dégg nga sa waay boo taxoon mu jàpp la dàq la dàq. alhamdulilah ma seytaane rajim maa ngi nuyu di toog ñëpp waaw di leen sant di leen gërëm di gërëm sama papa bu baax di ñaanal sama yaay bu gërëm yàlla na ko dalal bu ñu wëree. kii amul ma koy wax. barke Serigne Touba man damaa pare. pare naa. ak alxuraan kay li mu wax doo ko dégg du yàgg. nana bu la jàppee. waaw bàyyi ko kenn boobu bàyyi ko ñëpp. jëlee biir Pape. kon baax na kon ba samedi ba samedi bëgg nañ la sama ñaari waajur di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di nuyu sama àndandoo yi sama doomu ndey xas mu jàll hmm. bak seera Fall kii moom na seeti leneen na préparé beneen combat parce que dama koy daan waali woy ma damaa bëgg a waali woy ma poussière oyof na de bon poussière yow bu da Amina laa koy am na solo di woo waa Medina yëpp nag di woo Aliou Fall moom Lamine micro ya moom loo ci mën a dégg waaw sëriñ foofu waaye ci la bokk du a ñàkk loo wax Siteu auzu billaahi mina ma sant yàlla jur seen sant sama ñaawal di sant sama sëriñ sëñ Basiru Kan yàlla na fi yàgg loolu te wér kii li mu koy wax bëriwul kii wax jee fi laa bi su taxawee hmm. ma duma ko daan ko su bëree ma bërloo muy jooy hmm. billaahi man Malika laa dëkk yowoo benn baraag à soixante-quinze lañu nii du ko bàyyi fenn damaa mën a bëre kii du dërëm kii fa dëkk sama mag fa dëkk sama yëpp fa dëkk dama ko xam bu baax te xaw ma te billaay jour le vingt sept lay comprendre. Ah. man xale bu ndaw laa 96 laa judd. ok billaay walaay taalaay kii du dërëm. kon ba le vingt sept. le mu taxaw dëggal boobu mu réglé ma duma ko daan ko. am na solo ba le vingt sept leen toog. waaw bu baax rek. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si ñaari waajur di sant suñu Fallou Ndiaye mii bu baax nañ jàppale na koo xam ne day jël mbër yi dinañ xam jël mbër yoo xam ne feeñ ñu woon mu feeñal dañ koy sant bu baax waa di sant suñu waa dëkk Fuuta waa Morola bàyyiwuma fenn di sant sama papa bu baax a baax a baax a baax a baax di sant sama papa ak bulon général lu ñu koy wax bëriwul ndax amaana dama maa dama xamul moo tax ndax lamb ji nekkul bëri bu affaire yi bëri wax na maanu rek 500000 bàyyi ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul mëri dina naka teg ci table bi ñu ko ñëw làmb ja bañu yàlla nañ suñu waaw dégg nga maa ngi bëggee sama gaa yëpp di bëggee sama waa koñ di bëggee suñu waa écurie di bëggee alaaw bu baax a baax a baax ndax dañu sonni si man bat ci borom daaru amul dul daj si man bat ci arxuraanu karim yaa kay di andi door référence kese la kii lu ma lay wax bëriwul yow yow da ngaa gëmul yàlla am gëmul yàlla dañ lay daan sa gaan ñoo la daan da yàlla ceen Seydou Nour ba da ngay tey wallaahi maa la daa ko bëri da ngay ah, da ngay déglu loolu déglu yow lan la ah doo góor doo góor du fii fële la incha allah rabi leen laa lay wax da gëm yàlla dañ laa daan sa gars yi ñoo la daan Seydou Nour ba damaa dugg sa koñ rajaxe fa xamoo ma da ngay laajte waa sa waa koñ kan mooy général Kairé man xoola damaa compétir xaw ma ba wii ma ah la neexee. waaw wii la neexee nga wax loolu yow. wii ma ci il moo ko. non waaw mais nañ jox wax ji. waaw wii ma maa ngi sant sama waa grand frère kilifa yëpp di nuyu waa Cambérène gi ma jugee. di nuyu Fallou Ndiaye mi tëgg journée bi xam nga di ko ñaanal li si bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal. maa ngi sant yàlla bu baax. di julli si yonent sant samay ñaari waajur di sant Pape Mor Fadam di ko ñaanal fi mu nekk gënal ko fi mu jugee waaw di sant tamit sport bi sponsor bi nga xam ne moo ñëw accompagner combat bi jàppale Fallou Ndiaye quoi. waaw réacteur waaw dama koy naan. sa ban xarit ko daal. non loolu du wax. maa moom ñoo am combat. waaw loolu du wax loolu mbafar la rek loolu garaaw. nee na da défenseur nga maanaam yow doo attaqué mu te nee na boo attaqué làmb ji day teel a jeex. xam nga yéen xam ngeen Cheikh Super Jamono ku taxaw naan Cheikh Super Jamono day. moom moo ko wax ñun kay waxuñu ko wax jour dina xam kuy défendre na lay mel. noo koy def. kii waaw. bu xeexee ma duuma ko bu bëree ma daan ko. maa ko gën a nekk xale maa ko gën a capable. Ah. billaahi wallaahi taalaahi. ah dégg naa ko sànq de moo la ko wax fële mu ne ñi muy contactal contact war ñoom ba di ko duma xam nga kii bu taxawee naan ay góor a soog lay contactal ay fara ay morloo di xànju xam nga day xànju rek man ay xale laay contactal samay morom laay contactal te bu ma ko jàppee lay comprendre hmm. waaw. moom ay gune lay contactal contactalu ay mag. non moo fi tuddee ñoom Pambaay man de ñoom Pambaay ñu ngi contactal amul kenn koo xam ne ëpp na franc doole wala góor a soog man maa ko wax loolu mu leer. léegi nag boo xeexee mu kii loolu wopp bu yàqu la kii yow xam nga ne feebaru défendre bi dafa dafa dafa yàgg géej waaye kenn mënu kaa faj. waa géej waaye ñoo leen ay défenseur lañu. waaye feebaru défendre bi dafa yàgg seen côté boobu lan nga fexe faj. déet waay wallaahi. yow kuy défense mën nga man muy défenseur ak militaire laa lépp laa mëne. ok amul lu ma jaaxal si làmb kii bu lu mën di def làmb day daanu. day daanu dafa ñëw pour daanu mais ñëwul pour bëre si. kon looy wax ci di wax lii moom xam comme ñu ngi jàppalee làmb ji xam nga ñun ñëpp dañ see kontaan xam nga ñu wax mbëri ñu koy jëfandikoo parce que lii mooy doolee làmb sponsor bi bu ñëwee xam nga mooy tax combat yi mën a dox xam nga affaire gën a dox daal na leen jàppale ñun ñëpp xam nga képp kuy yëngu si làmb nga mën leen jàppale affaire avancé la seen affaire bu avancé suñu affaire avancé quoi ngeer rek. de ah ngeer. kamu ci réew. lu xew. <laughs> ah bëgg nañ la. waaw jaajëf salaamaaleykum. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. di sant képp ku fi teew. di nuyu kilifa yu tedd yi fi toog. ak euh, bon di wax si sponsor bi. réacteur ak planétaire kon moom tey dañu wax. te borom kër gi aussi zéro violence la fi wax. ñu gérer ko avec la discipline. ku nekk gérer ko le 27 soreetul ñu gérer li ñu war a gérer. incha allah yow ki nga war a gérer mooy Franc le 27 noo koy gérer. waaw xam nga wax nañ waxati ko waxati ko waxati wax ju bari ji yaakaar naa ne jaratu ko jëf ji moo ci des xam nga signature nañ plus des quatre fois xaw ma cinq fois lamb la mbër bu ma respecté la wax naa leen ko mil fois mbër bu ma jox cër la moo tax ma jël ko xam naa ne naan la champion la l'essentiel li am solo mooy bu arbitre bi ne firi man damay def jom damay def fula loolu wax naa ko fu ne. kon wax ji jaratul muy bari comme tey mooy daj dëpp bi waaw dañuy joxante rendez-vous rek la 27 incha allah. am na solo kooku ay ngeen. asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi teew fii yëpp suñu père bi toog fii Adama Ba waaw ñu ngi koy nuyu di ko ziar baax a baax parce que dégg nañu message bu mu lancé fekk keroog biir 2S message bu am solo la vraiment xam nga dañoo war a jox ñëpp cër parce que dafa am lu ñuy seetaan te ñun ci ay kër jigéen comme comprendre nga. waaw nañ jox ñëpp defal affaire daal bu gën a rafet quoi vraiment waaw non wax ji moom jaratul muy bëri comme lu mu wax rek di ko nuyu aussi moom tamit xam nga jàmbaar la quoi xam nga di ko ñaanal jàmm bu bés ba rek yàlla defal man dem sama kaw su mu wax ji muy bëri la ah, loolu kay jarul ñu si wax. bëri damay ñëw jàll dem sama yoon dafa am ni ma war a bëral sa jour ma wax la ko. bu ñuy yàlla na ko yàlla defal jàmm nag ba bés ba quoi. waaw moom daa mel ni mu am daal mooy si muy waxee. waaw di nuyu waa parcelle xam nga non di nuyu waa parcelle xam nga di nuyu ñaar ñi ma àndal ku ci mel ni Odo ak Alioune Diom ak sama ménagère as di nuyu waa parcelle. moom pour moom li mu am dafa nooy de nee day jaar jàll moo tax. waaw waaw nuyu waale suma xarit. suma sëriñ sëriñ Sidi alxuraan parce que waaw gise nañ gise nañ waxtaan naax a baax a baax di ko bëgge bu baax di wax Mbàkke waaw defal ñaan. bon affaire bi bu nice la bu nice la bu nice la franchement waaw. jëm ci kanam ci kaw ci kanam. Franc loo wax ci pay-per-view bi yow tamit. waaw affaire bu nice la initiative bu rafet la vraiment xam nga parce que lamb fu mu toll nii ñu ñaan yàlla na yokk daal. di nuyu tamit sama sëriñ. waaw waaw di nuyu waa Parcelles yëpp di nuyu Maam Père Ba. King Frère nga nekk wala fii ci réew mi. lamb léegi amatul gratuit kon bës jërëjëf. bitim réew amul code. bitim réew moom amul code carte bancaire ngay jënd. waaw dugg seen affiche point com dugg seen affiche point com la. jënd waaw jënd seetaan seetaan. ak sa email noonu la demee. Kokel ñu ngi di la ziar. yi. maa ngi ziar assistant bi fi toog yëpp. ci sa tur di la ci sa sant. di nuyu promoteur bi Fallou Ndiaye di rafetlu initiative bi mu def nii. di nuyu supporters yi nga xamante ne bu ñuy sonn ñun ñoo tax. di nuyu ñi ma am. Jokal man dama lu ma seetlu sa diggante ak Mama Lamine daa mel ni bi ngeen di commencé combat bi da ngeen ko doon raay ci ay wax mais keroog bi ngeen daje 2STV yi dafa tar. mel a ñaar da ngeen xamante wala. Mama Lamine dama ko naw nit ku ma respecté la du tey du làmb moo ñu boole yaa ngi ma dégg daan nañu waxtaan ci ay yu mbir ba tey jii làmb di dox di dox ba làmb boole ñu. cër boobu noonu day dox ba faaw parce que ñun ay taalibe Serigne Touba lañ yaa ngi ma dégg. dama koy jox cër làmb le 27 la damay ñaan yàlla yàlla mooy man dem ci kawam. Uh-huh. après dañu kon na ci liñ nekkoon parce que ñooy mayante xaalis. lu a dugg Lamsaar. destin moo ñu boole du question de bëgg a dugg Lamsaar. question de bëre la quoi làmb moo ñu boole du leneen. Hmm. ndaanaan la mais ndaanaan lay dajal tamit dama bëgg mu bàyyi loolu xel. kan moo gën a nekk ndaanaan ci yéen ñaar. maa ko gën a nekk ndaanaan. kon de xanaa su la déggee mooy bés ba yàqu moom. le 27. waaw yàlla mi ñu tim xam na damay daan Maama Lamine. mi ñu tim xam na ne. damay ba le 27 incha allah Aliou Fatfat day daan jox ma ngembali ma daan Maama Lamine. ay ndaanaan lañ. waaw dama jàpp sama planète. jàpp yi mu dellu li kenn dara maama mel ni ku ragal. kañ kañ nga ragal. ah lu muy arrière nii rek. maam bëgg nañ leen. xoolal ne réacteur la sol xanaa loolu tax moom ak mu ngi yëngu nii. ñam léegi. da ñam ci moo tax may ñam ak ñam di ñam bi ñam bi. billaay ñu nii yaa ngi nii. lim ko laaj laa leen laaj combat bi dañu ko doon raay mais léegi nag daa mel ni fi mu da ngeen di dugg ci zone de vérité bi. sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di gërëm suma ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Abdourahmane Mbacke yàlla na yàlla yokki leeram te tasu sur barkeem di nuyu Baye Karim Mbacke Fallou ak taawam soxna May Mbacke di nuyu sëriñ Sidi Mbacke alxuraan borom jàmmagan si Kambaaw di siyaar mbooloo mi toog fii yëpp di siyaar mbër yi di nuyu Jokal comme ni mu ko waxee. di nuyu assistance bi yëpp loolu lañ soxla ñun ay Baye Fall lañ dara foofu ñu li ñuy def mënoon nañ mais ay mag lañ am na loo xamante ni xam nga doxuñu si yooyu quoi. na solo léegi ñi koy def sax defe naa war nañ koo bàyyi te dégloonte ndax boo dégg boo demee ci ndaje moom war a lay daan te waat ay yëfu boppam la duma daan loolu yëfu boppam la. yow la koy def la wax. waaw non loolu yëfu boppam la. ah nee na yow la koy waaw yëfam la quoi. yow loolu nga may laaj. voilà kon luy sa yëf ci limaam man dama koy daan si kàttanu yàlla ak baaxam. bu xeexee mu duma ko bëree ma daan. jokkeel bi. kii matul mille li ma ko waxoon laa koy waxaat. grand bu ma respecté la bu ma jox cër. dalaama laama moo boole ak moom. kii bi muy judd judduwuma bi muy bëree bëreewuma kon lu mu bon bon war naa ko jox respect ndax sama mbokku taalibe la laam moo ñu boole waaye dama bëgg mu xam ni man dama nekk ci yoon man yii fëkkuma yóbbuwuma. keroog ñëw nga signature bi gis na la fa nekk ci mbooloo moom na suul ay tànkam rek mook ay mbokkam ay yëfu boppam yëfu boppam la quoi mais man ak moom baar bu ne piip dina xam dugub séeréer moo koy bay te man doomu séeréer la ah kon ne ñaari ndax moom it daa mel ni séeréer la de. maa ngi moom ñoo bokk lépp. barke sëñ Bamba. da nga wàññi poids la. daa ma man damay entraîné rek man xale damay entraîner rek barke Sëñ Fallou. pay-per-view bi loo ciy wax ak réacteur bii nga sot initiative bu nice la pay per bi xam nga Sénégal si Sénégal dañoo tàmbali waaxoole na làmb làmb làmb làmb mooy suñu culture mooy li nga xamante ni moo mën a développer suñu réew ñun ñëpp moom lañ bëgg xam nga kon tey jii lépp lu ciy waay di def rek war nga mën a ci jàpp quoi dem jëndi sa code ñëw toog seetaan xam nga soo ko mënul nga ñëw si stade bi xam nga loolu mooy affaire bi quoi réacteur nag dafa réagir ko kii dinañ joxante loxo joxante loxo. jàkkaar la xool leen caméraman yéen ku ko wax moom ku fa yegg si da taxaw te kii ay li may dégg mooy burle fa la nar bu ñu la nuyoo. waaw yàlla rek jul jënam sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ sant suñu alxuraan sant waa jàmm nga sika mbaa bi yëpp bawol bawol yëpp lambaay lambaay yëpp sam-sam buur Kër Massar Tiwaan Pël di leen woo bu baax ci combat bi waa Kër Massar waaw day burle fa bi laa wax déggoo li ma la wax kii du am dara non nee na la ne amatul ci réew mi sax. la nekk nii wax jeex na. jëf moo des. Hmm. le 27 incha allah suñu borom ñaan ko ñu waa ndam sedd guy ci kaw doomu dàngu. am na nga ci loolu. lu a ko ci raw. xeex bi déggoo lu mu laax. xeex per naa bëre per naa wasalaam ku dàq bëre ku dàq xeex ko doole yàlla ko yàlla may ndam kan du ñu teg daal inna wali yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla di sangu sang yi di ñaanal suma waajur bu góor fi mu nekk gënal ko fii di ñaanal suma waajur bu jigéen mu yàgg fi lool lool lool du wér di nuyu fukki ñaar yëpp du nuyu suma rakk yi nga xam ne ñoom laa àndal Boubacar ak Tidiane Faye maam ñaaw suma xarit waaw ñu ngi béggee ñëpp daal dégg nga li mu wax de ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla na ko yàlla may ndam sa adversaire wax loolu waaw am rek yàlla yàlla may ndam man loolu laay ñaan ah mais dañu wax si combat ba pare. ah looy wax si combat bu aadu simile na dëggal boppam rek. moom ndaw la te dégg naa dafa mën a entraîner man tamit loolu lañ may jëwee bu arbitre sifflé na taxaw dëggal boppam ñu def fulla fit fayda comme man dama tàmbal amateur yi combat yi di seetaan làmb quoi waaw dafa am solo man maa ngi oo lébu yëpp ak képp ku may bëgg rek ñëpp nañu jënd koti wala ñu ñëw esat xam nga supporter seen doom yàlla mooy ñu ndam maa ngi oo waa Tëngéej ci yëpp si combat bi ñëpp maa leen oo si combat bi ñu ñëw xam nga dafal waa ji bagage xam nga dem ñu bi quoi. loolu bi ci def a jàpp bu baax jàpp leen leen parce que tamit ñun amatul lu làmb waaw danoo soxla nag na lu garaaw ren mu ñëw defaat lii boole cinq grands combats yombul parce kenn xamul fu mu Adama boobu moom si làmb gars yi caméraman yéen a ngi jaar seen kanam rek di tey nag bu demee ba jël usine bu toll ni SODACEM andi ko mu sponsorisé Fallou Ndiaye Lamine defe naa kon moom deseletul làmb dara. xanaa kay ñaanal ko yàlla mu gudd fan te wér. mais tam usine xam ne ay sénégalais moom sénégalais yëpp dugal ci seen loxo lu ñu ñu jënd ko nag parce que ku lay jàppale nga koy jàppale Lamine. tonton ñu di leen ziar di nuyu Fallou Ndiaye di nuyu. arène nationale. temps boobu man maa doon secrétaire général lu amateur yi mosuma ko woon gën mais léegi weddi gis bokk ci. am na nañ ci jàpp fexe leen ba keroog bés bi na fees dell yéen ñëpp képp ku ñëw nga jënd sa planète indaale parce que boo tàngee planète ngay naan mbër yi boo leen entraîné boo leen di récupérer di leen naan réacteur parce que réacteur dafa baax ci yéen boo leen amee takk boo leen amee ngénte boo leen amee ay cant di leen jënd planète planète doomi réew mi moo ko moom doomi réew moo ko defar boo ko jënd yow boo demee làmb di amateur jëndal pay-per-view nga bàyyi ko ca kër ga ndaxte waa kër ga aussi war nañ ci ci bokk pay-per-view bi nañ ko jënd di leen jënd pay view ni ngeen di jëndee planète planète jàpp leen ko parce que boo leen ko jàppee mu jàppale leen. jërëjëf père. amiin dañuy rendre hommage suñu lion yi encouragé leen am nañu fulla am nañu jom def nañ li leen waroon. réseau bi tey jot. gis nga li nga sol macha allah kon. Euh, Cheikh Kouyaté mi capitaine bi ak seen entraîneur Aliou Cissé ñu ngi leen naan gàcce ngàllaama balaa ñuy jox tay seen deux nañ dugal fàllu ba pare parce que bu fàllu kaay nii kaay fii ñu seq yaa dëgg laa mujj toll nii nga boole combat mbër bu leen dem waay nar ko def pay bi view waaw dañuy yow loolu tey loo ci mën a wax tey sénégalais yi dañuy nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew muy mbooloo bi yëpp public bi di jiital di nuyoo bi Kandji Malick Balde Khadim Ndiaye Fallou El Capo di nuyu Michael Fora suñu xaalis suñu doomu ndey moom lu ñu ne mu nga ca di ko nuyu bu baax a baax di nuyu tamit champion yi nga toog yi fi nekk yëpp teg ci loxo ngeer comme niñ ko waxee ak ki xam ne mooy Tyson 2 di nuyu yeneen yi nga xam ñu ngi fi ne ñu ngi fi ñëw yëpp vraiment di rafetlu bu baax a baax a baax a baax taxawaay bi fii di rafetlu baax a baax tey ah, assistance bi ak ni fi ñëwee vraiment am nañ ci mbégte bu baax a baax di bu baax tamit waa planet ndax vraiment seen produit yi boo ko ñamee tàccu leen bu baax a baax gërëmaat bu baax waa planète. fay per nga def mosoo ko woon def